secteur de la pêche famille lañ ay mbokk lañ gis ni ñu ak ni ñuy jigéeyantoo yi di fi génn di dem di dem ci yeneen dëkk yi di jënd di comme place publique la dafay jaadu ñu ut matériel boo xam comme ni ministre bi waxee euh, ay madar omo lave et tout et tout ak ay siwo indi ko ci pour jox ko ñiy jaay ak ñi fiy pour ñu ci raxas loxo parce que dañ toll ci jamono boo xam tamit dëkk bi bu neexul ba pare feebar bu mel ni dugg fi ñi fi ne sénégalais yëpp dañu war a jóg à l'heure actuelle mesures yi nga xam ne moom la ministère de la santé joxe ak médecin yi ak président de la république ñëpp respecté ko mooy nuyoo bi mën nañ ko arrêté nit ñi tamit kuy liggéey boo ñëwee fi ngay liggéeyee ñu tegal la loo xam ne mën nga raxasu bala ngay liggéey nga raxasu nga def la nga laver say mais parce que tamit ñun ñëpp tey ku ñu fi téye sa doom ni dafa am coronavirus di nga am di nga di nga ruus sa doom nekk hôpital bu jógee fa te doo ko seeti bu dee ku jigéen noonu bu dee ku góor ku am jëkkër tamit noonu kon dañu bokk ci réew moo xam ne famille lañ te ñun ñëpp benn lañ réew nag bu tolloo foofu situation bu mel ni am nii bu ñu joxee ay instruction ku nekk da koy moytu. à partir de tey dañuy dugg di sensibiliser ni ñi dinañ dem ci teeru yi diggante jokkul kaw ba cëw leen dinañ leen may matériel station essence yi dinañ ko fa teg ñiy waas dinañ leen jox ñiy jaay ci kee bi dinañ leen jox. mareyeur yi tamit ñiy génn ak oto dinañ leen jox ay lave-mains ay madaar ay yooyu ñu teewaale ko di raxasu tey moytuwaale dinañ leen wax dëkk bu ñu dem tamit bu ñu déggee ne dafa am ñoom ñu moytuwaale loo parce que tamit dafa xaw a ñoom ñooy yóbbu jën bi ñooy ñëwaat fi mool bi tamit day teer jiwaalo teer mbuur teer yaraax teer feneen ñëwaat fi kon fii moom c'est un problème problème bi nag dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne mooy kàttanal tey dimbali jaam mu musal ñu ci musal ci réew mi musal ci àdduna bi